dañ fiy ñëw euh, ginaaw bu ñu signalé euh, fi ci tefesu caaro yi euh, mu am benn produit buy dérivé ci li nga xamné mom moy plage bi suba nak ci suba ampleur bi ëpp na fi parce que bi ñu ñëwee léegi gis nañ euh affaire bi vraiment tanena c'est-à-dire commencé na sey par rapport ak li nga xamné mom lañu gissone ce matin brigade de l'environnement def un déplacement d'ailleurs nous na ci biir def ay observation euh, ànd naa ak le gouverneur de la région le préfet du département de Pékin le sous-préfet de l'arrondissement de euh, le directeur de l'environnement et des établissements classés l'adjoint je pense l'adjoint au maire qui est là euh, pour nous enquérir pour la situation qui situation en tout cas nous avons euh, produit hydrocarbures Waye, fan la euh loolu dinañu waxtaan ak waa SAR euh, pour ñu éprouver euh, euh, pipeline ni pour seet ni est-ce que produit bi wul fof mais en attendant euh, du ñu avancer trop ci li nga xamné mom lañ ci fi gis par rapport ak muy polluer non seulement la plage ak polluer li nga xamné mom moy mooy géej mesure conservatoire ñu jël moy en attendant dañuy interdire la baignade tout le long euh, euh, de cette euh, plage qui est qui plage bi nga xam produit bi parce que gis nañ produit d'après le capitaine de la brigade de l'environnement qui na mom ci sur un rayon assez important produit bi gis donc pour faire éviter li nga xamné ne moy ay population yi euh, nous avons jël en rapport avec le préfet ben arrêté pour interdire la baignade et euh, surveiller la plage euh, le temps que nous puissions déterminer avec exactitude lan mo xew ñaarel bi dinañu avec le ministère de la pêche pour nous aussi naka la sensibiliser population ñi nga xamné ñom ñoy ci rayon pour éviter que les yoy ñuy jël ñu am la lo xamné indi euh, comme euh, impact la consommation population